ci jamono yi ñu toll nag ñu ci dund ay jafe-jafe yu metti dara waralu ko lu dul ay licence de pêche yoo xam ne ñu ngi koy jox ay chinois ay turc ak union européenne ak ay grec ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi leen koy jox ci réew mi xeex boobu nag dama jàpp ni xeexu ina paas rek même kiy lekk jën dafa soxla am jën parce que jën dafa am lu muy def ci yaramu doomu aadama kon bu ñu demee ba am jafe-jafe gis jën ci réew mi ñu nekk muy réewum senegal ñu nappkat yi dem ba am jafe-jafe dem nappi ut jën indil ko jox ko consommateurs yi kon dafay jaadu ñu taxaw wax li xew li xew nag du dara lu dul dañoo nekk ci réew mi bokk ci réew mi doon ay nappkat kenn mësul gis nappkat bu génn ni day xuloo wala day def ay mars bu ñu demee nag boo koy def dafa fekk ni ñun amatuñu sax lu ñu dundee te dëkk Sénégal moo waral xale yi di dem moo waral xale yi di di jéngu sax man dama wax ni sax dañuy jiyaat dañuy gàddaay pour génn réew mi ndax nit koo xam ne dañ ni la boo duggee ci géej gi fa nga jëm man ngaa man ngaa dund man ngaa dee nga forcé ni da ngay dem pour dee kon veut dire que ni yow doo dara ci réew mi nga nekk muy jafe-jafe boo xam ne moo ni dañ koy dund moo waral ci immigration clandestine clandestin bi mool yëpp dem bañ naan quatre cent et personne personnes dee nañ ci te li ci ëpp nag ci immigration clandestine bii ñu fii ñu toll nii tembe ay nappkat rek ñoo gàddaay di génn réew keneen gàddaayul di génn réew mi nappkat yi la ak marchand ambulant yi nga xam ni jël nañ seeni place ak chauffeuru taxi yi nga xam ne mënatuñu am client bu ñu yàpp ak ñeneen ak ñeneen ñoo àndandoo gàddaay di génn réew mi loolu nag bi mu ñu dalee ñun nappkat yi ñu gis ni investir nañ ay gaal ay 30 millions 40 millions bëgg a liggéey mënatuñoo liggéey suñu géej fu ñu wëlbatiku bato mbëkkuñu ci géej gi jën bi ñuy napp mu nekkoon jay wëyëng yaboy ak euh, merlu ak beneen xeetu jën coof kocc ruur jarañ ak baase kibaaro xeetu jën yooyu yëpp bato yi ñu ngi koy xëccoog ñun dangay gis bato boo xam ne day jógee Gàmbi wala mu jóge Casamance sóob mbaal di ko diri ba egg si Ndakaaru doog ko yëkkati tànk mbaal mi feesul ak jën du ko yëkkati te ñoo ñu ëpp ay ñoo ñu ëpp matériel bu ñuy nappe bato boo xam ne day jóge Saint-Louis sóob mbaalam di ko diri ba ndakaaru mu fees mu doog ko yëkkati pour mën a dem pour mën a yab jënam ñun nag bi ñu ko xoolee ba ci yàgg ñu xam ne bato yi ñoo nekk ci biir géeju ndakaaru ak biir géeju Casamance ak biir géeju Salmadi biir géeju Ndar taxaw fa jën wu war a wàcc si pour ñun pêcheurs artisanat yi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi moom réew mi ut ay gaal mënatuñu gis jën woo parce que ñoom ñoo ñu ëpp capacité te bato bi mi ngi guddee 40 lay guddee. am largeur huit mètres wala sept mètres di yàpp ay six cent tonnes sept cent tonnes jën ñun mënuñu mënuñu mënuñu amuñu yooyu yooyu moyen amuñu yooyu moyen ñàkk moyen boobu nag moo tax ñoom ñu taxaw jën woow bu bu masaan a jóge ci biir géej immigré wàcc si ñun dañ koy jàpp te ku ne xam na ni këru nappkat yi ci tefes gi am na ci kër yoo xam ni bu géej amul jën du ñu lekk duñu naan amuñu fonctionnaire ci littoral bi de Cap Skirring à Saint-Louis ci 718 kilomètres loolu nag impacté nañu impact boo xam ni à l'heure actuelle yuuxu rek moo ñu dese dara desewuñu parce que dundatuñu lekkatuñu naanatuñu nappkat yaa ngi ser seen gaal ci géej gi amatuñu essence bu ñu yóbbu géej nappkat yi ñu ngi ser seen gaal ci géej gi ma ñu ngi teg seeni gaal ci kaw amuñu luñ ko peinture lu luñ ko defar ku sa mbaal dagg mënatoo ko defar ku ci sa caas amatoo caas yoo nappe mënatoo ko jënd man amoo loo ko jënd machine gaal mi ngi jar Sénégal Gambie gii mi ngi fiy jar euh, deux millions neuf cent mille fii mi ngi fiy jar trois millions huit cent et quelques mille boobu différence lan la essence su gaal Sénégal la gën a cher que fii ci région ci su sous région bi ñu ñu dendeel kon jafe-jafe am na ci nappkat yi jafe-jafe boobu nag moo tax ñun nappkat yëpp ci Sénégal INAPAS porté combat bi jiitu ci kanam ni man may les pêcheurs en activité woo ñëpp ci seen ginnaaw ni leen kaay leen ñu àndandoo. dem wax lii nga xam ni moo xew ci réew mi pour ñu utal ñu ci saafara defuñu ko ngir dara dañ ko def ngir réew mi fi lañ bokk fi lañuy ñuy dunde fi lañ dëkk ba pare ñu bëgg jël tubaab yi jox leen suñu alal tubaab yooyu nag ñun ñu ngi daw di dem ñoom ñu ngi daw di ñëw loolu mooy suñu problème à l'heure actuelle mën nañ xam ni géej gi boo ci duggee foo daw foo wëlbatiku ay bato ñoo ci ne ndax loolu dina dem kenam beneen bi ci topp mooy ñu ngi zele suñu numéro gaal ñun ni dootuñu ñu jox numéro ba pare continuer di signer ay licence de pêche ak tubaab yi te joxuñu ko sénégalais yi tubaab yi sénégalais yi tamit am na sénégalais yoo xam ni dañuy dem fekk benn entreprise boo xam ne amoo sax boo taxawee sa entreprise amoo cinq cent mille francs bëgg ni da jën jënd bato cinq milliards parce que bato loolu lay jar léegi nag ci biir loolu ay sénégalais ñoo dem di kàddu bato yi di leen ñëw di leen def seen pour di leen sénégaliser di ñu gën a rey réew mi nag ko bokk ñun nappkat yi nag jafe-jafe yuy dund fi ñu toll nii tembe metti na ci ñun mettiwaay boo xam ne ku ku yéen ñiy jënd jën sax xam ngeen parce que tey ku amoon salaire u cent mille francs doon si jënd jën quinze mille francs daaw ren yaa ngi jënd jën vingt cinq mille francs te bu ne cinquante mille ngay jënd jën sa salaire dootu la jariñ dara beneen bi ci topp yaboy bi gënoon a yomb ñu naan sax des fois dañ koy tuur keesu yaboy mi ngi ci fukki junni wala juróom-ñaari junni boo demee marché di jënd yaboy di jënd jën il faut ñu sóor ñi nga xam ne amuñu doole parce que tey ku dem di jënd jën benn yaboy en francs nga koy jënd te yaboy boobu juróomi dërëm la doon jar wala fukki dërëm wala saam 100 francs léegi nag sénégalais ndax ñun bëgguñu lekk coof ndax ñun bëgguñu lekk ruur wala jareñ ndax dañu nekk ci réew mi tubaab yi di jëw jël suñu jën dem lekki ko ñun bàyyi ñu ñun sénégalais yi nga xam ni ñoo ni woon ñun suñu plat national ceebu jën la ñun toggatuñu ceebu jën parce que poisson congelé la ñuy lekk non seulement loolu euh, yaboy la yaboy bi ñu daan safale moom la ñu ndawaloo kon am nañ jafe-jafe jafe-jafe boobu nag lañ bëgg ñu nguuru Sénégal xam ko ut nu ñu waxtaane ba résoudre problème bi suñu jën ñëwaat suñu géej suñuy nappkat mën a jotaat jën yi di ko dunde INAPAS nag loolu rek mooy mission amul beneen mission mission bi mu am mooy nappkat am alal liggéey am alal mën a defaraat matérielu géejam mën a dimbali askanam mën a dimbali nappkat yi te li ci gën a graaw mooy Sénégal fi ñu toll nii tembe ñun les pêcheurs li ñu gàddu ci emploi ku ñu koy wax ci Sénégal mënoo ko gëm parce que tey ñu ngi jël defar ay matériels yoo xam 30 millions lay jar 60 personnes ñoo ciy dem géej 60 personnes ñoo ciy dem géej bu ñu teeree 10 personnes ñooy tibb jël ay bool di ko tibb di ko def ci ay kees 40 personnes ñoo koy yenu di ko yóbbu ci kaw ci oto bi te ñun dañuy maye jën bu ñu teeree dañuy maye mooy ñi ñuy neeral borom oto bi ko jënd daf koy glacé ci oto bu paree daf koy yóbbu Tamba wala Kédougou mu ne 300 kees. mu jox ko 300 jigéen ñu détaillé ko kon ñun dañu créer emplois boo xam ni dafay ñëw ànd ak mairie yeeg ñëpp ñoo ciy am xaalis te kenn financé wu ko ñun ñoo ko financé suñu bopp. kon ñun ñoo ñu ko financé suñu bopp soxlawuñu dara lu dul ñu dimbali ñu suñu géej de jën dellu si ci ñu bàyyi tubaab yi ñuy jaay suñu géej jaay nañ suñu géej ba mu jeex tàkk man li ma jàpp sax mooy fi tollu toll nii est-ce que du ñu natt ndox mi sax di ko def ay bidon di ko jeex. manifestation bi ñu ngi ciy woo Sénégalais yëpp xuloowuñu xeexuñu yàquñu suñu alalu réew. dañu woote rek pour ñun sénégalais yëpp ñu daje place de l'Obélisque di ñaan ñi nga xam ne ñooy jox auto autorisation ñu jox ñu autorisation parce que suñu droit la ñu ngi koy doog a demander ci Sénégal bi Sénégal amee ba léegi nappkat mi ngi fi doog a pour ñu may ko mu dem taxaw wax li ko naqari dellu ci biir këram xeexuñu xulowuñu wootewuñu dara loo xam ne violence la dañu woote rek pour ñu xam ñun am na lu ñu naqari te yàgg nañ ko jàmbat depuis ministre yi fi jaar yëpp ñu ngi koy jàmbat te amul saafara. dafa tombé ministre bii fi ne nag mu gën a pire léegi nag ñuy woote président de la république pour ñu jox ñu autorisation de marche ñu dem place de l'Obélisque woo askan bi yépp ina pass moo ko organisé mais mi ngi ciy woo askanu Sénégal yépp muy journaliste bi am na ci woo nañ ko fa woo fa kuy lekk jën ak ku mu mën a doon woo nañ la foofu parce que bu ñu amul jën du ngeen lekk jën kon yéen ñëpp jóg leen ñu dem place de l'Obélisque wax li ñu naqari bu ñu waxee li ñu naqari nag ba pare ñu delluwaat suñuy kër xool ba xam ñoom dinañ ko saafara am déet parce que napp gi fi mu toll dafa laaj ñu def assise de la pêche toog ñun ñëpp autour d'une table muy consommateur yeeg INAPAS ak secteur bi yëpp ñu toog wax jafe-jafe yi ñu jéem ñu ci utal solution parce que loolu la ñuy fale gouvernement nguur bu ñu koy teg pour mu utal ja utal jàmm population la ñun amatuñu jàmm kon le cadre ñu ngi woo sénégalais yëpp place de l'Obélisque waa INAPAS ñu ngi woo sénégalais yëpp ñu daje place de l'Obélisque yi si jàmm ak salaam def li ñuy def ku nekk delluwaat sa kër ci jàmm ak salaam.